tey présenter présenté résultat yi nga xam ne jëlee nañ ko ci institut Pasteur euh, résultat yi nag institut Pasteur testé na ñaari cas suspect yoo xam ne dañ leen prélevé ñaari cas suspect yooyu seen résultat négatif ñu testé waat ki nga xam ne moom la am comme patient bu positif ñu am ko keroog le 2 mars nous hospitalisé ko maladie infectieuse kooku testé nañ ko ñaari yoon ñaari ko testé yépp dafa négatif donc kooku wër na dina génn ci waxtu yi ci top. may wax rek Sénégal tey amul benn cas ñu ngi léegi ci ñetti cas mais dañuy maintenir vigilance parce que nous avons ko que rek ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi continuer di wër cas ministère mu ngi ñaax askan wi di ñaax personnel de santé bi pour que ñu gën a vigilant ndaxte xeex bi dafa laaj ñun ñëpp ñu ànd boole xol yi boole xel yi boole aussi xam-xam bi pour que ñu mën a mucc ci feebar bi.